pour mën a xam ni yenn droit yi nga xam ne les plus élémentaires ñu mën koo xam te mën koo jëfe pour éviter yenn yi alors tey lan mooy les défis de l'heure ci wàllu droits humains mais surtout droit des femmes puisque waxu jigéen ñi moo ñu fi teg tey waaw euh, xam nga déjà droit de l'homme nit ñi suñ ko waxee dañuy foog ni góor rek la engagé mm. mais lu ni mel suñu ne homme ak H bu mag bi la oh, mooy tey muy góor muy jigéen mm. muy nit en tant que tel mais ci kaw loolu dafa bëri ay acquis yoo xam ne dañ koo jaayantewaat mm. de par des conventions et autre pour mën koo am te ba nii c'est pas tellement effectif parce que comme ni ma koy faree di faral di waxee rek bëri na ay poñ yoo xam ne chaque année dañ koy kaas mais tu en âme et conscience mm. fi leeg changé guñu système bi wala changé guñu yenn yi mm. chaque année moom ngay répété waat comme lan tey mi ngi mel ni euh, xam dañoo ne égalité des salaires wala xeet yooyu mm. mais tey dafa am benn discrimination boo xam ne dafa am ci biir entreprise bi par exemple da ngay gis tey benn RH boo xam ne góor day taxaw jigéen taxaw mu war leen a recruter war kenn ci ñoom ñu bokk ay diplôme mhm. bokk fu ñu jàngee bokk à peu même expérience bi et parfois même mhm. ku jigéen ki day ëpp expérience ku góor ki mhm. mais des fois salaire yi duñu tolloo muy inégalité des salaires dafay am ku góor ki euh, la ñuy gën a ëppale salaire ku jigéen ki sous prétexte que ku góor dafa yor góor day yori famille day yor kër te jamono ji ñu toll ñëpp xam nañ ni ba justement mooy li ma lay wax léegi te jamono ji ñu toll bëri na ay jigéen yoo xam ne ñoom ñoo yor seeni kër des fois même charge yi ci ñoom lay ëppee que ci góor yi mhm. ba tey dañuy nekk ak seen yor ko yor seeni doom moom laa lay wax te lépp nag ci sutura kenn du yëg mhm. ñu wëlbatikuwaat ba tey à diplôme ah et expérience égale nga gis ni tey sooy demander emploi yow ngay jigéen kooku di góor peut-être kooku xam ni peut-être que tu es marié du jël risque jël la yow. day préférer jël ku góor ki sous prétexte que tu es marié. dans quelque temps mën nga ñëw ne da nga nekk en état congé de maternité ak yooyu te congé dañ la koy fay ak yooyu mu ne duma ma jël risque jël kii mm. même su dee yow yaa gën a compétente da lay romb jël ku góor ki sous prétexte que day bañ cons day daw congé de maternité ak feebaru grossesse ak yooyu justement et je tenais à préciser que jigéen liggéey gu bëri moom moo koy angu te liggéey googu yépp c'est pas rémunéré mm-hmm. mooy jigéen tey liggéey bi muy def ci biir këram c'est pas rémunéré te da koy def mm-hmm. pour wan la doolee jigéen moo tax man tout le temps nit ñi suñu naan ndax féminisme nga man qualifié wu ma sama bopp comme féministe parce que suñu naan égalité homme femme man je pense que la nature même nuñ ko defee mooy jigéen moo féetee kaw góor loolu nit mënu ci dara mm. ci naka góor ak jigéen da ngeen di bokk poste dem liggéey ji soo leen ñibbisee yow góor nga tëdd nga tëdd noppalu ku jigéen ki moo lay yor yor njaboot gi te du tee li ngay mm. produire professionnellement moom laa yow li ngay produire professionnellement moom mi ngi mi ngi produire lu ko raw <laughs> te pourtant yow soo ñibbee li ngay njëkk a xalaat mooy jaaxaan tëdd amaana sax sooy tëdd mm. danga naan ka nga àndaloon liggéey yi defaral ma lal bi tàngalal ma ndox ma sangu indil ma añ te loolu yëpp moom moo la koy defaral mm. boole kook ndax njaboot gi boole kook toppatoo njaboot gi tey yar xale c'est pas rémunéré mm-hmm. te pourtant liggéey gënu ko parce que yaa ngi bâtir tout une génération yaa ngi bâtir tout une société. Mhm. et c'est pas rémunéré. laajoo rémunération ci mhm. loolu. au contraire yow yaay lijjantewaat leneen lu ñu rémunéré moo tax man suñu naan féminisme man je me qualifie pas comme tel. Mhm. man dama gëm ni. loo xam ne yow yaa ko moom soxla woo di ko commandé wala di ko ñaanaatu da koy foqati mm-hmm. ndax dafa am loo xam ne ñun suñu place la te ñun ñooy imposé wu dañoo toll ci foo xam ne dañoo war a wu mm-hmm. mais pas di jooytu par ci par la bien sûr avec l'accompagnement de yenn loi yeeg convention yi dinañu mm-hmm. arrangé mais tout le temps dama naan ñun nañu fexe jaayante ba lu ñu bëgg ci réew mi ñu am ko donc bëri na ay inégalité yoo xam ne saa su nekk mi ngi am te euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy remarqué ci société bi te di ñaan rek justement yoon def liggéeyam ni mu waree et surtout daan yi nga xam ne ñu ngi assemblée teesante yóbbuwu leen fa xuloo yóbbuwu leen fa dañoo toll ci weer goo xam ne dañ koo centré ci jigéen kon mm. nañu profiter de l'occasion xool les inégalités mm. xool xool mbir yi taxaw ci comme il le faut mm. mm-hmm. Yolande loolu am na solo euh, xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoo lancer peut-être un message jigéen ñi mais aussi góor ñi jigéen ñi ca assemblée nationale moom foog naa ne lu ñu leen wax doyul mm-hmm. <laughs> ñoom ñooy sunu ay représentantes à l'Assemblée nationale donc ouais. tu as certainement un message pour ñoom pour euh, toutes les femmes mm-hmm. et pour góor aussi euh, pour qu'ils soient beaucoup plus compréhensifs envers les femmes mm-hmm. gën a jàppale jigéen ñi quoi aussi ce sont nos partenaires de vie mm-hmm. donc am na loo xam ne warul mun a ñàkk ci suñu diggante dëgg la lépp loo gis complémentarité la te vraiment euh, suñu ñëwee ci genèse doomu aadama en tant que tel sax da ngay xam ni jigéen daf nekk pour mën a compléter góor et vice versa. donc euh, ñoom vraiment suñu partenaire lañu. Mm-hmm. mais nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci ni euh, ëmb dafa bokk ci ñun. Mm-hmm. xam nga dafa am loo xam ne yàlla moo ñu ko bindee munta ñàkk ndax suñu toogoon ne da ngay liggéey ba dootoo amati doom ba mm-hmm. dootoo amati congé de maternité kon day gën a ñaaw kon loolu dafa bokk ci ñun kon disparité boobu di am saa su nekk Euh, nañ ciy bàyyi xel inégalité boobu tamit nañ ci bàyyi xel xam ne yàlla moo ñu ko bindee mm-hmm. te loolu wàññiwul dara ci suñu compétence c'est mission en mission la boo xam ne vraiment dafa bokk ci ñun waaye bu yàqul dara ci suñu mën manager yàqul dara ci suñu compétence ñàkkul dara ci suñu xarañte mm-hmm. au contraire da koy gën a dooleel ndax tey nit ki nga xam ne am na ay tout tànk ni muy mën a gérer famille bi ba ñu mën a ba ñu mën a tegu ci yoon mm-hmm. daanaka fekku ci keneen kon représenté assemblée nationale ñuy suñuy ndaw ñuy suñuy mandataire mm. nañu bàyyi xel bu baax li leen fa yóbbu ñun en tant que jigéen bëri na ay combat yoo xam ne war nañ koo mën a mëne mm. et surtout fi ñu war a tàmbalee mooy fexee delluwaat ci sénégalais yi jël seeni jàmbat mm. àggee ko foofu assemblée nationale ak def ay proposition de loi parce que da ngay gis ñu ci ëpp ci député yi suñu xasee ba falu pour sénégalais bi sax jote ci moom day jafe waaye yow su dee sénégalais bi mënut a jotee ci yow nan ngay xamee ay jàmbatam mm. su dee jigéen ñi nekk dans la sous-région nekk ci village yi nekk ci ci coin yu gën a reculé au Sénégal demoo ci ñoom demoo vers ñoom pour waxtaan ak ñoom nan ngay mën a xamee seeni njàmbat kon ñoom nañu gën a ubbeeku te xam ne ay ndaw lañu. Mm-hmm. ñun faluñu buur duñu ay buur waaye ay représentant lañu. Mm-hmm. da ngay gis ko mel ni Guy Marius bañ ko falee dafa ne man seen mbindaan laa kooku mm-hmm. day dem ci coin yu gën reculer di wax ak population bi loolu la ñuy xaar ci jigéen yi fa nekk. ñu wàccaat ci biir terrain bi. jokkoog jigéen ñi waxtaan ak jigéen ñi organiser leen ba mën a xam seeni jàmbat. porter combat boobu yóbbu ko directement. assemblée nationale man jàpp naa ne sax bi suñu parlementaires yi jigéen ñi ñoo ko waroon a njëkk a jigéen ñi xool luy seen problème bi gën a métti gën a urgent ñu porté ko au loolu la ñëpp di xaar ci ñoom kon di leen ci soññaat bu baax a baax il n'est jamais trop tard pour bien faire te mbir mi combat bi yemul rek ci mars waaye année année bi yëpp douze mois yëpp dañ ciy sargal jigéen kon nañu delluwaat ci population bi ci jigéen ñi ci couche bi nga xam ne ñoo gën a vulnérable ñu jël seeni jàmbat porté ko ci assemblée nationale bi dugal ay projet de loi te gëm naa ni loolu ndam rek lañ ciy mën a amee mm-hmm. di la jaajëfal bu baax yow mi ma invité di leen ñaanal tamit borom bi gën leen a yokk te gën a dëgëral seen taxawaay ci saayir ak ci baatin di remercier ñëpp ñu ñu doon suivre mm-hmm. te di jéggalu bu baax su dee am na lenn lu dëng ci kàddu yuñ mm-hmm. fi jot a yëkkati waaye bëggoon a jëriñ jaam ñi rek a tax leen jaajëfal bu baax xam naa ba beneen rek. incha allah très bien Yolande Camara man maa lay remercier mm-hmm. euh, moom mooy coordonnatrice Sénégal euh, notre priorité ñu doon waxtaanee jigéen ñi ak seen ay jafe-jafe nit en tant que nit euh, aussi ak ay jafe-jafeem ni ñuy salfaañee àqam ak yelleefam te ku ne xam ne ci Sénégal moom loolu dafa mel ni jamono ji lu xew la donc ñu ngi leen di gërëm di leen dig daje ci yeneen waxtaan toujours dans le cadre de la célébration de la journée internationale de droits des femmes jigéen ñi ñoo moomee mars jigéen ñi ñoo moomee weer bi kon seen ay jafe-jafe yépp allah dinañ ko fi teg waxtaanee ko ñi ko war dégg dégg ko te ñuy ñaan aussi ci cëppaandaw ga mu am saafara ñuy gërëm toute l'équipe technique Mor ak ñi mu àndal di leen euh, kon remercier itam yéen ñi ñu doon seetaan jërë ngeen jëf